kon bu dëkk bi demee ba agsi fii ba ni ko nit ñi di waxee nekk ab dëkk am réew la waaye li yaat yaataat bu doon am réew itam na xam ne kër la kër Sëñ Tuubaa la mhm. kon dëkk bi Sëñ Tuubaa lu fi neexul Sëñ Tuubaa waru fi kon lu ngeen fi dégg rek muy loo xam ne yii nga xam ne yéen ko fi dégg yëpp day loo xam ne moom adduna ñoo xam ne ndax lu yaatu rek amul rax dëgg la te Sëriñ Tuubaa dafa woote ñépp wuy sutu ñi ko wuyu si nag lu da cee nekk ndax ku gàddaay ku ne ñëw da nga indaale sa aada da nga da nga nekkoon dugal ko ci biir dëkk bi moo tax dëkk yi bindoo nii mu bindoo loolu nag xar baaxu Sëriñ Tuubaa moo tax waaye dëkk yi mel noonu ci àdduna yëpp saa soo da nga dégg nit wala nga dégg jam wala lu waaye dëkk bi saa su fi déggee lu mel noonu ba da nga ko déggal mën yàgg mm-hmm. kon li Sëriñ Tuubaa ñaanal de na nga na ko def muy dëkk bu am kaaraange suñ borom wuyu na ko ci loolu. Mhm. kon nag lépp lu nit di def ci taalibe yi rek mooy gàttandu loolu ñi nga xam ne rek dañoo nekk ci dëkk bi te nekkewuñ fi nekkewuñ fi lu neexul sëriñ bi loolu sëriñ Tuubaa lay jàmmal ndax sëriñ Tuubaa moo ko ñaanoon ci man la foo sëriñ wax ne nan nga ko def muy dëkk boo xam ne képp ku bëgg jàmm yàlla day yomb ci yow mhm. waaye mu nekk dëkk boo xam ne képp koo xam ne bëgg ngaa def lu naqari yàlla day dox sa diggam moom mm-hmm. kon ñi fi nekk itam te mel ne loolu neexu leen wala bëgguñ ci atam loola néew na sax waaye rek mëtt a ndax lu mu néew néew mën naa yàq lu bëree bëri mm-hmm. kon nag loolu ñëpp am responsabilité ci jéem a xeex ak ñoom xeex gi rek ni ko suñu doom waxe léegi sëriñ bi siru coono ñu ngi ko dokkal ci kàddu bi li wax yëpp leer na dafa mel ne nag la Serigne Touba waxoon rek laa koy fàttali dafa woote ci njaarim Serigne Mari Diagne mu ne ko ndax ñëpp ñëpp ñëw nañ mu ne ko Mbàkke ñëpp ñëw mu ne ko woote ñëpp wuy si la de woote ak dëgg ñëpp wuy la ci yàlla mooy ko kenn mayu ko boppam bari ko may kenn kon fexe ba kenn du wax ci yow dara wala kenn du ñaaw njort ci yow dara loolu kenn mënu ko li am solo rek mooy di seeral yàlla di seeral Sëriñ Tuubaa mi tax di jig loolu rek moo di ci am solo ndax bu leeroon ci ñëpp ñu rafet ci njort la tàggate sa digg yàlla leeru sa digg Sëriñ Tuubaa leeru tu yàgg yàgg danaan fànn dëgg la li ci li ci am solo mooy Sëriñ Tuubaa mi ngeen di seeral te leen xam bu ne xam sa kilifa kii di Sëriñ xam sa xam la yow mi xam ñi ni ci biir day danañ xam ne suñu leen def lu dëppootu ndigal sëñ bi leen jàdd digal sëñ bi leen def itam lu juyoo bëgg bëggu sëriñ bi loolu moom fu ne lañ koy xalaate bu gis yéen xanaa ku leen xamut kon loolu jërta sax leeral ndax li nga wax nag in jaakum faasiqun bi naba'in fatabayyanu ndax loolu suñu borom da koo nattoo lislaam nattoo ko yoon murit ndax yoon murit duñ koy tudd lislaam a tax kon lu dal lislaam rek faaw mu jël ci moo tax lislaam adduna sépp ñi nga xam ne bokkuñ ci li ñuy waxtu ne ñi ngi jàmbaar la moom di ko xeex ci ay xalaat di ko xeex ci ay tuuma di ko xeex ci yi gën a ñaaw waaye dañoo mel ne kuy suur kenn mhm. gën a suur rek muy gën a yëkkati muy gën kon loolu mooy mbirum Sëñ Tuubaa kenn mënu koo far kenn mënu koo naxal kenn mënu koo gàkkal lu ñu ko gën a xeex gën koo gotti gën koo suufeel mbirum Serigne Touba di gën a yëkkati wallaahi loolu moom kenn doonu ci dara Serigne Touba bu fag ñun ñi kenn doonu ci dara kenn jëfu ci dara Serigne Touba mën naa défendre bopp mën naa lijjanti mbiram waaye nag loolu li Serigne Hamza waxoon léegi waxtu nekk ma di ko fàttali Serigne Saliou dafa waxoon ne taalibe bu tooñu sëriñam kuy fay bu tàggu <laughs> moo tax ñi nga xam ne itam dañuy yëkkate ay kàddu yi jëkkut di ko jëmale ci yoon bi nañ xam ne ñoom itam lu leen ca fekk rek ñoo ko teg seen bopp ndax bu dee kilifa yi jàmm la ñu woote lu rafet la ñu woote ndax ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izati al hasana wa jadilhum billati hiya ahsan ndax alxuraan dafa wax ne wala tujaadil ahli kitaab ahlal kitaab illa billati hiya ahsan ñi nga xam ne bokk ñoom diine sax booy wax ak ñoom wala ngay defal ñoom ji daal na nekk ci waxin bu rafet rafet kon waaye nag nañ xam ne positif nit dafa sori ci biir nit te ñun Serigne Touba ñu génnal suñu jëmm génnaluñ suñu lépp kon ku ci dégg loo xam ne wóor na leen lii jàpp nga ne gis na ci si biir xol waxtu wooy réagir boo ko tey loolu la Serigne Touba da ko def ci xol tari bi kon loolu na ko ñëpp xame noonu dañ xam ne yoon te xam ne itam yoonu murit yoon la woo xam ne dara dëppwu ceeg lu yàlla santaane dëppwu ceeg lu yàlla santaane dara dëppwu ceeg loolu sunnatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Sëriñ Tuubaa dafa ñëw ngir yeesal yoonu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam am na ñoo xam ne nag la Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon xetuk Sëriñ Tuubaa xëy ñu kenn mënu ci woon dara ndax si Sëriñ Tuubaa dafa waxoon ne ñaar rek fi ñëw ñi nga xam ne àllaaxira lañ fi indi ñooy ñooñu lañ fi bëgg maanaam naa leen ko naa ko defal ñi nga xam ne adduna leen fi indi rek yàlla suñu borom jox na ma ba ma doon ki ma jaaxa daal mooy ki nga xam ne mooy yàlla def neexu loolu nag nañ xam ne du fi jub lu ngeen dégg rek looloo ko andi waaye Serigne Touba noppi na ci mbiram waxoon na Serigne Amsa Diakhaté ko sama dëkk bi sama yoon yi sama xasida yi lépp maa ko yor soo sama bopp lu ma ci kenn dara kon na suñu suñu xel dal suñu njortu gën a rafet mu wóor ñu ne képp ku jub te Serigne Abdou Lahad Mbacké waxoon ca waxtaanu mu jëm. képp ku yëkkate ay jëma ko ci réew mi ay wax doo weesu <laughs> nag bu koy wax Touba ci jiitu dëkk la ndax Sénégal boo amee jàmm Touba ndax Serigne Touba bi fi nekk moo tax kon Serigne bi ñu ngi lay nuyu di la sant bu baax di gërëm di la xamal ne Cheikh Mouhamadou Mountakha xam na li nga Cheikh la moom ndax moo fi sëriñ Touba te fi nekkal Serigne Touba njabootu Serigne Touba gépp a ngi sa ginnaaw mm-hmm. ñëpp topp nañ ci ginnaaw ni ñu ko defewoon ay kilifa bu jëkk yàlla def moom itam moom ca xaasi boo ndax kenn ku ci ne ni ko seeree ku ci ne seq nag yow loo xam ne la nga am ci moom jox na la ko mu sëkk ba mu ba mu sëkk te nekk yaa ngi koy seere ci ci géej ko seere ci biti kon loolu moom loolu la jàpp ci woon ndax xam na ba nga ne xam na ne ku doomu Serigne Touba jur doomu Serigne Touba yar la dara mënti nekk ci yow lu muy jikko doomu Serigne Touba kon loolu. mooy mën a nekk ci yéen ñëpp suñ Basse tam itam ngi lay sant bu baax di la gërëm ndax xam nañ sa Basse xam sa taxawaay xam ne looy wax rek aussi moo tax di ko ndax loolu lu ma jort wala lu ma dégg lu ma xam dund ko yow kon ngir bañ a guddal ndax daanaka wax ji li ci amoon solo euh, Serigne Hamza wax na ko amul dara luñ ci war a dolliwaat li nga xam ne bindoon nañ ko mu nekk ab bayaan ñu liir ko itam amul dara luñ ci war a kuñ leeru ci sam xel daal boobaa la Cheikh Maodo Fari daa wax rek daa wax nit ki li nga dégg ci moom boo ko gënee gëm li nga xam ci moom kon la nga dégg da laa gën a. wallaahi loolu la <laughs> waaye li ci dégg leer na ci mm-hmm. ñu ngi sant ñëpp di gërëm di ñaanal ñaanal itam ñi nga xam ñoo nekk ci daayira bi suñu borom dimbali leen kàttanal leen ñu bokk ci inna min ibadillaahi la unaasan maa hum bi anbiyaa maa bi shuhadaa yaxbituhum al anbiya wa shuhada ñu wax ko ne ko fa man huwa a'maluhum la'alla yuhibbuhum rasulullah wax li nen aw man yatahaabbuuna bi ruuhi llahi azza wa jalla adduna sépp marché woon ci tiir wala yu njàqit duñ tiir bu ñu raf duñ jàmm mm-hmm. ndax dañ xam ne yàllaa ngi seen kanam Sëriñ Tuubaa ngi seen kanam wasalaamaaleykum